waaw bu nga xamee nii daal bu ñu la jàppalee jàpp. waaw kon nag léegi on est des ndax ci kàddu ko. Medina boo yaa ko taxaw di sànni. man yëpp lañ téye. moo des orange orange moo des orange bële bu yàqu bu yàqu moom moo moo moo ko jëloon. oto bi yor oto bi yor yor yor yor yor yor